Thank you. Bakar bu daan doxantu ca kaw taaxama tiwaawan fa di ko seetaan mu ci seen biiroo sa jamono may looloo ma Sëriñ Babacar bu ñu la musaana indi ci moom waaw boo dellu si te àndoog moom bay laaj lu xew ngir maandoo asgor dafay gëstu dem booba sëriñ Babacar boo ko musaana day soxla moo tax mujjug dundam dani dootuma ñaan yàlla ndax koo xam ni loo xalaat rekk yàlla def ko ñaan ko bokk na ci gal gàtt xel kenn du sëriñ Babacar Si mësula may boroomam boko ko musaana day soxla ay way ba moñ ba tek ca inshallah nga xam ni mbay tay ji la raw ziyaari leen ko maam nan ziyaari mbay docteur tariixa bi bari fay tànk ay fa mbay minti bi max naa ziyaari mbay mooy docteur bi wallaay bari fay tànk e ku def ni yàlla nga fekk déwén a ah, tv nan dem si yaari mbay docteur tariqa bi bari fay tànk ayfa bay min ti bi ma xanaa woo tijaan nañ dem si yaari bay mooy docteur taariixal bay bay tànk ayfa bay min bi ma xanaa woo bay bay nee nan dem si yaari bay تر طريق ببري فيتان اي بيت تيم مغنا ينتي جان نندم سيار بي دكتور طريق ببري فيتان اي ف مي من تيم مغنا خليفه بي وينا لا la gañ naa la yëssil naa la jox naa la sama xol mbay kenn du yow ajaban mbay min tiibi max naa ñun tiijaan nañ dem si yaar mbay yaay docteur taarixam leen xori mbay tànk ay fa mbay min tiibi max naa sama sëriñ way naa la gañ naa la yëssil naa la naa la sama xol mbay kenn bi yow fi ajaban mbay min tiibi ma xanaa ñun si jaan nañ dem si yaar mbay yaay docteur taarixal bari bay tànk ayu fa mbay min tiibi ma xanaa bu fi leen ni way naa la kañ naa la jësil naa la jox naa la sama xol ba kenn dul yow fi ajaban bay min ti bi ma xanaa ñun ti daan nañ eh, dem si yaar bay yaay sama soor taare xaale bay bay tonk ayu fa eh, eh. bay min ti bi ma xanaa xalifa bay way naa la kañ naa la jësil naa la <laughs> kenn dul yow fi ajaban bay min

sama xol mbay pondon yow fi ajaban mbay min tiibi ma xina ñun tijaan lan del si yaar yaay docteur waawaaw lay bëri fay tànk ay fa mbay ah. min tiibi ma xina daf leen ne xalifa di bu jant bu jant loo bañ bañ mu ci la leeralal la di la bay min tiibi ma xanaa ñun tiijaan nañ dem siyaar may may docteur taariixal leen bay min ma xanaa tiibi xalifaay ah, sangal ko sangal ko am nan cay ndawal fooful ci mbay sango mbay min tii bi ma xinaa yéen tijaan nañ dem siyaar mbay mooy docteur taale fay fay tontu ay fa mbay min di ku bañ ni du jiitoo jiitoo xalifa mbay si kon bu sareeti jiitoo fas daanoo xaj naa ca ah, mbay min ti bi max naa ñun tijaan nan dem si ay fa mbay biir daayira yi danga ba ca buntur na zeynaatu bay minti bi ma xanaa tijaan nañ dem siyaare bay may docteur taari wàlle wari way tànk ay fa bay min tiimi maanaa boo ko jàngee mbooloo yaa daan dikkal sunu yoon nan ba bu nu demee Tiwaawan gis ko Saalu Mbay bay min tiimi maanaa ñun tiijaan nañ dem siyaar bay mooy docteur taarifal leer bay tënk naayu fa bay min tiimi maanaa loxo yi ñëw jàngal mu Zeynatu خمسة سنة الدائرة خليفة رئيس النسيان مي من تي بمغنى ينتي جانا دم سيار مي مي دكتور تاريخ لي مي تنك آيفة آه. مي من تي بمغنى سرين بابا بكر باكم سنة دي سخلا ba muñ ba teg ca incha allah nga xam ni mbay mooy waaja tey jii la raw ziyaari leen ko ma sëriñ Babacar boo ko musaana day soxla ay waay inshallah nga xam ni mbay mooy waaja tey ji la raw ziyaari leen ko ma sëriñ Babacar yar bi mu ci biir mbooloo moo tax am na ñoo xam ni bala ñoo correcte rek danoo dem ci biti waaye sëñ Babacar ni mu mel ci biir noonu la mel ci biti yar bi mu yore ci biir mbooloo moom lay saxoo saa yu weetoo. ngir yàlla because sa bër tax na du jafe lu dul yoonooma sëriñ Babacar yar bi muy yoore ci biir mbooloo moom lay saxoo saa yu wetoo ngir bëtu yàlla because sa kenn du jëfe lu dul yoonoo ma bu weeru koor wi ma saan feeñ kan moo fi gën a bëgg al amin sëriñ Babacar bu weeru koor wi ma saan feeñ ci Sénégal ba ca Congo balaa fajar ñépp yëg baay Abdul Aziz la koy doxloo baay ana bëgg Sëriñ Abdu bu weeru ci Sénégal ba ca Congo balaa fajar ñépp yëg baay Abdul Aziz la koy doxloo baay sëriñ Abdou kori gi ñëw naka noonu te bés gi tam naka noonu service bi tam naka noonu baay Abdul Aziz la koy waxloo kori gi te bés ki tam naka noonu du yam naka noonu baay Abdul Aziz la koy wax loo baay kan moo fi gën a bëgg Serigne Abdul Aziz naka noonu baay Abdul Aziz la koy wax ku fi gën a bëgg al amin bari ñaaw naka noonu ay waay te bés ki tam naka noonu Abdul Aziz la koy dox loo maam sëriñ Babacar magam yi mi noon jataayama duñ ko wecceek ku dul soppeem lool leen waxin bay loonu ko ma ñaa ngi nii xam ngeen loolu xale yi juddu ci ginnaaw mbay ku fi juddu ci ginnaaw sëriñ Babacar tëgëm ko jugal taxaw xale yi juddu ci ginnaaw mbay ñun xale yi juddu ci ginnaaw mbay ay waay gisunu mbay te mbay la nu gëm koo ci waxal mooy bur yàlla moo ko ko jagleeloo Sëriñ Babacar bur yàlla dolli teeroo bur yàlla dolli la cheikhul xalifa sunu maam booy te dolli jaaramal njabootam nuy àndandoo di ziyaare moo tax damay faral di wax ni kuy def programme gaawal def ko balaa waat waawan na mawla ya sal sal lii wasal ay waay للدائما أبدا على حبيبك خير sagi adina ge ñoo ngi sa weer wa salli ñoo ngi ci weer yonent bi ya ilahi wa zira abada

ril xel kunge ñoo ngi ci sa weer wa solli yaa ilaahi wa siyoon eh, eh, eh. hana ma daanal وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق السماء ñoo gis weer wasalli ana ñu bëgg yeneen tamit yaa ilaahi wa ziyaat أبدا أنافها ما دام المختار في نيلا كنا ويه وقد توصلت يا رحمن يا ثقتي يا مني زفير مصفى يسوير وصلي jamono di dox ya ilahi wajiya akoyoni hamna muham mada tarusin la ligi nila bayu waye sant yaa rahmaanu yaa sixati yaa mugniya دافع الأوزار فتان ويدلنا وصلي يا إلهي وزير a leen di jàngal xam naa mu xam waaw waaw maa daxal taarufin la waa murid diflin ni rabbi bi asmaa'ikal husna wa azamiha wa arus Mustafa yàgg finjaan yow yàgg ci yoon wa solli ñaanal leen ñu yaa ilaahi wa ziyaa yàgg ci yoon ana Muhammad ma daanal taarifin bu njëkk nii laa ko daan waye Muhammadun محمد ما وحا شيرنا نبي يوم يالنا أقل أخيار ديون وصلي آمين يا إلهي وسيلة رحمة أمين waaw ma daamal taar sila léegi nii laa koy waye Muhammadu Ahmadu maahi wa amirna nabi yow mar tëram sunu maam Jaara moom moo nu teg ci yoon wa salliya yaa ilaahi wasiila ma جاء بالفائقات تابوت كسريا وسركن يا تفجان يو يا تجيون وصلي يا إلهي وزيا أبدا أنا مختار عتيب دفلني ولا عاقب المقتفي آثار من من من سبخ من بيا ورس لله أقل تخيائي وصلي يا إلهي وزيا أنا أنا ما دام المختار في الأمر ولا عاقب المختفي آثار من سبق رسول الله بدلالنا وزليا يا إلهي وزيا أمانا أنا مرتفينا لغتكم مرتفينا دفنني ولا عاقب المقتفي سارما سبق من انبياء ورسل يا خير لتاتي خاجيزي وصلي يا يا إلهي وزيا أبدا أبدا كمال مختار سيد الحاج مالك زاد المواهب أسماء ورا تبع الحروف في إلي Sénégal مضيع ونلر وصلي والله يا إلهي وزير ما دانا تعرف الأخي دار ñëpp wax leen

Masyaallah, allah yaakaar naa ñëpp kontaan nañu ku contane rek tatchul rasulullahi limay faral di wax nan macha allah ku sa contane ka yaqul defena contane nga ci li macha allah yal na yàlla baat bi yagal and bi gars liñ lay dar macha allah dinañ ci ñew legi inshallah allah ndax fogna mbur gep bi ne pa malik day ñew ñu bari nenañ bu ñewé lacc lolu serigne mi no gisé prestation serigne serigne pa malik baarakallaahu xaaji pap yal na yàlla wéral sa baat yal na yàlla yàggal la yàlla nga sut sa wajur aw fan nga dara du hasard l'an deux mille seize octobre deux mille vingt seize octobre seize un le six un plus six sept bo jele ñaari set yi muy 77 boko bolé 7 plus 7 14 muy wahabu uh-huh. kon leer yoy asrar yoy yalla nako yalla yàlla tay ci dariha sunu bàyyi alxaaji mbay doon ne mbay amin amin ak mbokam yam fa nekkal yépp lima ma mom tay sun su ñewon diko notel du xam fu muy jaar dafa am lo xamni jeune génie la xaasiya la xusoosee bu ko yalla defal la ci bir way wi uh-huh. waxna la ni buy way day jàngale Mhm. sànq wax na ci téere aboda bu ruux wa bi xaylihi mhm. wa bi xayrihi mhm. jàlla balwara dëgg la waaye ci biir way wi yaa ngi dégg maan wa bi xaylihi am na ñu xelu ñëw am na ñu xelu ñëw ñu xe ñu xeelu ak ñu ñu xeelu. waaw ñu xeelu ak ñu xeelu. xam nga xelu ak xeelu du benn. dëgg la ATV tey gars yi dañoo sañse ba rafet. fa tabaarakallaahu gis nga jigéen ñi ni ñu sañsee gis naa soxna Dieng ba njaay léegi. ndeysaan tabaarakallaahu xool Adja Kumba Diop Mbuub bu Serigne Babacar Sy. nga xam ni moom boo duggee këram boo ne asalaamaaleykum rek sëñ Babacar moo lay fay. Mhm. ki démb daf ni ma Abdou Fati. man de lii dafa bette. dëgg la waaye su bettewuloon. damay wax papa si na ñëw yenn sama kër. ma teral ko. ndeysaan mu ne ma bërki démb dañu dem Tiwaawan papa si bi ak Cheikh Tidiane teral leen. ndeysaan fa tabaarakallaahu mm-hmm. kon Serigne Pape. yal yàlla wéral baat bi. amin amin na ko yàlla yàggal. amin dégg nga sànq ci message bi. Mm-hmm. wax na ni Serigne Babacar sunu soppe. Ah. soppe képp ku bëgg a baax. ndeysaan nee na li ko yàlla defaloon. mooy ku mu toogal. Hmm. sëriñ Babacar jàngal na la yar ak teggin. te loolu yaakaar naa mi ngi bëgg a raaf ci jamono. Hmm. kon message boobu ñun ndaw ñu ñoo ko moom xam ni euh, ki nga bëgg dañuy wax ni euh, euh, wa min asbaabil mahabbati hmm. bokk na ci sababu cofeel ki nga bëgg. mooy it itbaaxil amri wa nahi mooy nga topp ay digalam bàyyi ay tereem. kon ñun jeunesse bi ñoo moom message boobu. ñun soppee sëñ Babacar yi fépp fu ñu nekk ci àdduna ah. nañ fa gën a wane yar nañ fa gën a wane teggin ndax ki nga xam ni bu toogoon du siggi hmm. ngir yàpp ni mi ngi janoog amaamallahi hmm. ko mooy seexal xalifa ah. Ababacar si yàlla yàlla yokk leeram ah. yaakaar naa daal message yooyu laa mën a retiré ci jàngale sëriñ bi. jërëjëf euh, sëriñ Abdou Fati Niang yaakaar naa li nga indi ci leeral leer na macha allah yow itam yàlla yàlla yàggal la fi ci darajay sayyiduna sa alayhi salaatu salaam alaaj Pape Malick ginnaaw ba nga bëggalee nit ñi ci première partie comme li ma waxoon léegi ni xale yi dañ doon bippé mais yow tamit da nga doon bippé lii nuyoo la rek euh, ndax sama air bi il faut nga woy ko muy saaba yi euh, xale yi ñu mën naan doo tuur xéewal mais boobu lay tuuree xéewal incha allah ndax boobu moo may daaneel tabaarakallah mais dañu bëgg ñëw ci question Euh, li muy tagg Seydina Mouhamed bi nga xamante ni yaa ngi ci tu fais partir des plus jeunes comme ni ñu ko waxee nabiyen nabiyen yi nga nga xam ne ñoo nekk ci toile bi nekk ay jeunes mais am na foo fekkoon mbir yi am foo ko yóbbu sa source d'inspiration lan la surtout ci wàllu innovation waaw euh, Pape maa ngi lay nuyu ndax sànq dama la jël ci nuyoo bi nuyu itam sama sëriñ sëriñ Abdou Fati Niang ñaanal ko yàlla na yàlla dolli leeru xam-xamam amiin amiin ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax gis nañ ci moom ay tuqaa wal adab yal na yàlla sàmm loolu waaye li nga wax rek mooy noo ko waxee nga ni dama ni da gis nañu ni euh, lii di tàgg yonent bi ci kër maam Cheikh Seydi Hadji Malick am na fu mu nekkoon mais am na foo ko yóbbu gis nañ say way say say sooy jàng tabaarakallaahu day am beneen aspect boo yëg tabaarakallaahu euh, gars yi comme ñoom Pa ñoom Salick gars yu baax yi tedd yi ngay àndal gis nañ li ñu lay dar tabaarkalla dafa neex lool mais source inspiration bi lan la ba nga indi innovation yu mel nii lan moo la ba nga innové mbir yi. waaw xam nga suma juumul danga nga ni. Hmm. am nga foo ko jëlee am foo ko yóbbu. Uh-huh. waaye fi ma ko jëlee rek laa ko yóbbuwaat. ndeysaan ndax ci mag ñi laa ko jëlee. Uh-huh. ci mag ñi laa ko yóbbuwaat. Uh-huh. waaye dafa tombe ni euh, jamono bu ne ak la mu laaj. ndeysaan xam nga mag. ni mu mën a déggee ak ni xale mën a déggee bokkul hmm. léegi nag boo boolee nu xale di déggee ak nu mag di déggee yóbbul mag uh-huh. mag gërëm la ndeysaan fa looloo tax rek uh-huh. léeg ñu xaw a indi eeri way ko ci xaal bi nga xam ni xale yi danañ ko mën a déglu hmm. mag ñi danañ ko mën a déglu kër sëñ Babacar yokk kër Seydil Hadji Malick yow tabaarakallahu ndax it nuru sa baay baax na uh-huh. waaye nuru sa baay it nuru jamono ba yakuko ko dañu dañoo bëgg nuru suñu bay nuru jamono mhm. lolo tax rek eer yi ñu défé ko non té défé na ni soful askan wi ah. fi nga dugg nak ci sama awokat yi di ñom Pa Assane mhm. ak mustafa ak Salik mhm. ak Mbay Dondo ak khalifa job ma ñaan ñu taccul ma leen bu baaxa baaxa baax ndax damay faral di wax ni rek jobon eh, boo koy wax rek fii ba suba te waxoo walay du neex. walay du neex de. ñoom nag ñoo neexal way yi. Uh-huh. ku dégg nañ may awoo xam ni yéene rek lañ may awoo. ndeysaan wax naa ko fépp su ma juumul ma ni. Uh-huh. Sénégal gëm naa ni dàq ma fee way. Uh-huh. mais gëm naa ni maa fi dàq awukat. ndeysaan te loolu moom àddina bi sedd nañ ko. maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ñaanal yàlla. di ñaan yàlla may nu teraanga bu ma leen jox ngir yonent bi sallallahu alayhi wa donte ñu ngi jéem sax waaye li ma bëgg ci ñoom yàlla na ma ko yàlla defal amin incha allah ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa tabarakallah jërëjëf ñu fàttali leen yéen ngi ci euh, euh, seen euh, télé ATV la première chaîne bu Mbour spécial Pape Malick Mbaye waree ba Tiwaawan ñëw fii ngir bégal ñu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye bégal ñu ci maam Cheikh Seydi Hadji Malick si waaye nag Serigne Babacar am na air boo xamante ne bu ko woyee rek fii day daal di yëngu daal di nu xam naa du ñàkk moom lay mujjee dinañu bégal ci incha allah mais alaaj Pape sa diggante ak awkat yi boobu nag la ma ñëpp dina soo ñëwee naa la ko posé gis nañ ni sànq euh, sëñ Assane am na lu mu wax daaneel na ma fi mais loolu répétition la wala ànd bu yàgg la wala lan la. waaw xam nga ànd bu yàgg sax ci la waaye xol bu laab ci la. xam nga li ma la wax sànq rek. Hmm. xam nga nit bu la dee aw ba pare yéene la victoire bi. defe naa ni loolu way ya dana neex. Hmm. te ñoom suñuy way man dama yek ci biir way ni man li may def ñom ñomako gëna bëgg mhm. fa tabarakallah ndax nit lepp loy def di ci tricher rek yalla du la ci defal la nga bëgg te yalla man na lu ne nak ba mu dess len moy mhm. nit def lu baax mu fayé ko lu bon moy yene bu sel bi ñuy ak man mhm. ñu bari dañ may laaj ndax da ngeen di répété waaye musuñu répéter yalla xam kon musuñu waaw la fi tontu ndax xam nga ni ñun dafa am fu ñuy connecté woo. Mm-hmm. mooy ci wifi sëñ Babacar Si. te wifi sëñ Babacar Si 4G la. 4 foofu la ñuy inspiré woo rek màggaa yi. ndeysaan eh, mu ngi noonu sëñ bi dégg nga El Hadj Malick li mu. barakallahu ah. sëñ Pape boobu moom ëpp nag 4G 7G la. 7 <laughs> ndax sëñ Babacar Si mooy borom 7. Ah. Eh, xam nga eh, Papa Samb. laa béykat gis nga sonorité. Mm-hmm. divine. Mm-hmm. moom li ma wax léegi dama ni su notoor ñëwoon koo xam dafay jàng way mhm. di jàng sonnute mhm. du ko mën a noteel parce que du xam fu muy jaar parce que ñi ci ginnaawam fi ñuy jaar ak fi ñuy dugal mhm. doo xam fu ñuy génnee ndeysaan xam nga loolu dañ koo donnoo ñoom ci Cheikh Seydi Hadji Malick trondoom Cheikh Hadji Malick bi muy wax xijaab yi yeneen bi jaar fukki junni xijaab ak ñaar xijaab bu nekk mu wax fa ban ismullahil azam la fa doon zikkar daf ni wa kullu xaaza tasbihan mais aat yi بترتيبها في حسن منتزمي موم لاي ديف لولو موي سونوريتي ديفين واي سوخلاول جيتار سوخلاول باز سوخلاول فافارلي سوخلاول بونغو سوخلاول تاما سوخلاول صبر مي فارفوس داي دوج سا خول نيه تي مونو تي دارا مي مي مي سيغن بي فوفو دافنا عثمان مي دوما بايي مو لول دغ دافنا نيوم سين بروغرام امنا بن كو خامتين بوكول اك génne mais daf ne force am na ku nekk ci suuf di kii loolu sonnute divine la uh-huh. loolu daf dafay mel ni sax malaaka yi ñoom ñoo ñëw rax ci uh-huh. biir uh-huh. yor affaire di ko yëngal ci suuf te boo ko doon xool doo ko gis fa tabaarakallaahu mais ma laaj ko ci pandémie bi gis naa ma dani allahumma faj'al ilahi aliyatan yitte bi mooy xëy na soriwaay am na am na benn espace boo xam ni léegi am na euh, écart amna ken occupé tu ko. Hmm. gis naa ko ci Facebook muy def ay live fa euh inspiration bobu seigne pap hmm. ndax bëgg jégué soppé yi la wala tabarakallah euh, ban yek yek nga ci am. waaw yek yek bima ci am moy xam nga pas-pas comme garab rek hmm. boko resetul rek man na yaq ta nak ki nga xam ni dara xewul dala daan wo bi dara xewé soo ko mënee bégal te du agsi ci yow doo agsi ci moom nga def ko te yàlla rek tax moo tax bu guddi musaana jot ma woo yi ni leen nañu fexe rek ba soppe yi gis nu yëgaat yàlla dundaat seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ni ñun benn yoon rek lanu am muy yoonu Tiwaawan looloo tax fa tabaarakallaahu ñu koy def fa tabaarakallaahu ci Instagram bi ak Facebook bi ak YouTube bi ngir bégal soppe yi xam ni nag ku la sopp rek mënatoo koo fay moo tax léeg-léeg nit woo la ni la namm nañ gàmm yi man la waaw demal ci Instagram bi soo demee nga déglu foofu ngir yàlla ak mission bi rek ndax ñun suñu lépp mission la Baye mbay Donde lépp mission la woon moo tax bi ma Babacar woowee sax mu baal ma ndax li bokkul ci question bi daf ni ma woon dama bëggoon ñu def ko entrée ma ni ko ëpp naa def baal rek ma ñëw ndax Baye Mbaye Donde dafa am bis am ku ni ko mbay dondo koku sax si la sant ba yaangi fayeku muniko aw ni ko ngi kay muniko lan moy ce prix muniko dina la ko wax bis ñu daje ci raw du sëñ Babacar mu ko ma don laaj kan moy ce prix muniko muniko ko waaw fi moy ko sama prix mi seigne babakar ta aduna bi yeb xamna ni bay Mbay dondo seigne babakar fay nako ndax neena rusna rus su ma ni won nañ may jox nangam soppi seigne babakar bi nga xamni pass pas rek la am waaye poosam demeewul noonu te sopp na ma ma jox ke xañ ko su ëllëgee xaw ma bu ma gisee sëñ Babacar lan laa koy wax loolu moo tax rek ñuy def loolu di dugg ci Facebook bi di béggal nit ñi ndax suñu xaalis sax la jël di ci def yàlla xam na ko waaye bëgg nit ñi bég bëgg mission bi bañ a daanu rek moo tax ñu koy def te du daanu ko nag incha allah. jërëjëf euh, sëriñ bi. Eh, foog naa ni laaj bi leer na waaye tontu bi itam leer na eh, yéen ñi ñuy topp wala yéen ñuy soga dab yi ngi en direct ci ATV la première chaîne urbaine bu Mbour yéen ñi nga xamanteni tam itam ci mbollem plateforme yi foog Serigne Babacar Sarr dina duggal léegi question yi nga xamanteni internet yi du ñak ñu ngi koy ñu ngi la koy poser bu ko defee ñu eh, jox la ko nga dal ci tontu en direct fofu Serigne bi ñew fofu laay rebondir ci walu réseaux sociaux gis nañ ni yow amo tendance di def comme yenn jàngkat yi. Eh, ndax wax dëgg yàlla xëj na dinañ ci dikk yaa ngi ci am ay waajtaay yooyu def lu mel ni ay def ay single lu ci mel def ay vidéo di wane sa bopp mais yow fenn nga focaliser wu mooy réseaux sociaux yi pourquoi le choix des réseaux sociaux yow Pape nga tàmm ko ndax ku ku gis gis na ay Pape Malick Mbaye gis na leneen ak leneen mais yow say say activité lu ci bëri ci réseaux sociaux yi lay jaar pourquoi le choix des réseaux sociaux. waa xam nga loolu moom tontu bu gàtt rek laa koy def. Hmm. ndax defe naa su ma ñëwee tey Mbour réseaux sociaux moo ma invité du dëgg. dëgg la waaye ah, leen. <laughs> non non Pape Malick nag dafa dafa xaw a naqaree kii parce que moom du du kii daal ah <laughs> soppe yi soppe yi wax leen nag moom muy développé euh, mais loolu am na solo macha allah réseaux sociaux moo la indi euh, mais dañuy ñëw foofu ndax lii ku ko gis xam ni yombul ci jamono ji xat na xat goo xamante ni tabaarkalaaw Pape Malick mbay ak ay soppeem bëggoon nañ nga ñëw ci lan mooy sa secret ba tey macha allah taala. foo jógee xale yëpp jóg foo jógee mag ñëpp jóg ñëpp jóg mboolem tarixa yëpp rek jóg ngir ñëw jàppale la ci li ngay def ngir nga am ci ndam. waaw dafa am loo xam nag wax dëgg yàlla suñu boroom moom moo ko def. Mm-hmm. ndax kenn mënta xëy rek ni ne ma ñëpp bëgg. Mm-hmm. loolu moom yàlla rek moo koy def damay gërëm soppe yi di leen ñaanal bés bu ne ma wax ko. ndax koo xam ni boo ko doo ko jot. te ceen ko gën a mën a bëgg tabaarakallaahu maa ngi leen ciy ñaan waaye diggante boobu daal hmm. dama ragal ni dañoo bokk fu ñu jëm rek hmm. ndax man nee naa la sëñ Babacar si laa bëgg bëgg a doon taalibi cheikh hmm. ñoom it ñu bëgg sëriñ Babacar si bëgg ku leen di bégal ci sëñ Babacar si ñu daje ci rond-point sëñ Babacar <laughs> ma leen di wayal ñu bég boo fu ma jëm rek mm. ñu bëgg ànd ak man ci sëñ Babacar Si ndeysaan kon nag yàlla noonu yàlla defal mission bi amin ñu matale ko ci barki sëñ Babacar amin radiallahu anhu kon sëriñ bi dégg nga alaaj Pape eh, li mu wax ci digganteem ak soppeem mi waaye dégg nga li mu wax apporté ci ay leeral ci digganteem ak ni muy def ci wàllu réseaux sociaux bi eh, yan kii nga ci indiwaat ay jàngat bu fekkee amoo beneen question itam ñu bàyyi ko mu yéegaat béggalaat soppe soog a ñëwaat ñu continuer li nga xamante ni mooy question yi waaw côté boobu moom faw ma euh, ndax luy ay di jàmbat hmm. moom wax na ko léegi ndax nee na su weeru gàmmu di teru kuy def sa programme defal hmm. balaa mawlaay salli di jib hmm. ah te yaakaar naa euh, ren euh, li ëpp mooy gàmmu c'est léegi moom ndax mu ngi pare gën a augmenter wala gën a yokk jumtuwaay yi nga xam ni tey sopp yi nga xam ni daan nañ dem Tiwaawan te tey ñu fas yéene jëfe ndigal toog seen i kër lan nga pare lan nga leen préparé pour gàmmu 2020 gi incha allah. waaw soppe yi li ñu leen préparé mooy rek li kilifa yi di bëgg dafa tabaarakallaahu xam naa am na ci loo xam ni am na commission boo xam ne ñoo ko yor pour wàllu gàmmu geeg nan la ñuy def ba ku ne fa nga nekk e, gàmmu gi fekk la fa nga seetaan ko defe naa loolu ñu ngi ci fa tabaarakallaahu waaye bu dee ci suñu wàll ren dama ni woon damay def. benn album def naa ko ba noppi waa ji sax xam naa nee na ma yow da ngaa texet woo na ma sànq ni ma waayow xanaa da ngaa fàtte album bi ma ni ko fàttewuma ko dama gisantewul ak kilifa yi pour laaj leen ban bis mooy baax pour mën koo génne waaye incha allah su ci semaine bii incha albumu caat bi ngeen doon xaar àddina bi yëpp di ko xaar da ngeen ci gis seen bopp bu baax a baax uh-huh. ndax mosuma génne album nag uh-huh. li tax nag defuma ko woon mooy dama ni duut kenn comme da koy def uh-huh. te mooy suñu mag mooy suñu kilifa rus naa muy def may def ndeysaan waaye ma ñaan ko ci ndigal déggal moom sax moom moo jox ma ci ndigal ni ma mën nga ko def ndax jamono laaj na ko moo tax ci ndigalam ak ndigalu kilifa yi caat dana ñëw jox leen album bu neex a neex. Mhm. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mu ngi noonu kon damaa bëgg rek euh, ñu daal di koy accompagner mu yéeg ci kaw euh, xam naa nag ñun amuñu choix ni kii wal wayal bii mais bu ñu sañoon euh, wala soppe yi ban ngeen bëgg mu kii ko ah lu mu way neex na kon pap yaa ngoog soppe yaa ngoog ATV ngoog na